salaamaaleykum mbokk internet yu Dakar instant ñu ngi leen di jaajëfalaat kenn ku ne di leen jox seen wàccuwaay di leen dalalaat ci seen émission bii di dal jàmm dal jàmm ñëw tey fii ci Yoff Layeen Yoff Layeen buñ ko waxee xel yi dem ci Seydina Limaamu buñ waxee Seydina Limaamu xel yi dina dem ci bis bu mag bi nga xam ne moom la ñuy waajal muy 139e anniversaire Seydina Limaamu fii may waxee ak maa ngi nii toog ci barab bi nga xam ne. ak barabu sidna limam fi nga xamne fi la teud ma togo ndok kenn ci ci setam ak ci ay talibem nu ñew tay fasiyene waxtane jëm ju tedd jooju muy Seydina limam ak li nga xamne mo wundu bis bi nga xamne ci lañ jëm muy appel bi def mooy dañuy bay sëñ sang bu tedd bi mu nuyo señ bi na nga def. na xam tur bi naka la. Seydina Mañoon Laay di sët ci Seydina Limaamu sëriñ bi nu ngi lay gannaaw ban la siyaaree jox la sa wàccuwaay waa Dakar instant ñëwoon fi tey nu gis ni ñu ngi waajal bis bu mag muy appel bi nga xam ne moom la Seydina Limaamu woote woon ren di cent trente neuvième anniversaire ana nan ngeen ñu mën a jàngatalee bis boobu bismillahi rahmaani rahim لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نيجي سانت يالله بو باخ دي جولي تاي سلمون سي سونوب سانغ سيدنا الامام عليه الصلاه والسلام دي نيان يالله فايل نيوكو سنوب خليفه سنوب سانغ سيدنا الحاج با عبد الله تشاو يالنا في غنا ياغ لول تي غنا امين امين امين اخ خليف جنرو ييب امين نيغي نيو سينيغال بي ييب دي نيو ادنا بي ييب دي جيل سانيو نيو اك سانو زيار ديكو تكسي لوخو غايو تيدي ني اندال mm. Sayidina Baye Modou mu ngi ni tok ak Baye Seydi Lahi ñu feggoog wa Dakar Instant Seydi Malik ak sanu cameraman di len nuyu di len ziar di len dalal ci dëkku sang bu tedd bi Seydina Imam Ali wassalam di am sawerto lol nak pour tontu ci laaj yoyu Seydi Malik laaj nga xamne ne pour lepp nak pour leral bes bi ñu nga xamne ne lañuy wajal muy 139e anniversaire de l'appel de Seydina Imam Ali salaatu wassalam ñu ciy woo àdduna bi yëpp di wax ne bés boobu duñuy waajal ñu ngi ci ñu ngi ci 139e comme ni ma ko ubbee sànq di muy le cinq ak le 6 avril bi ñu jëm incha allah ñu ciy woo àdduna bi yëpp di wax ne ñu ngi ci wàccaay waaw bis bi nag ni ñu koy dundee mooy laayeen boo seetloo bu buñ tolloo fii ñëpp dañuy feggu ànd génn si kër yi ñu dajaloo boole xol yi ànd mag ñeeg ndaw ñi ndax sanga bi moo ne woon diine ji xale yi ak mag ñu muus ñi ñu ànd pour yaatal parce que dafa waxoon wax bu am solo mu ne yaatal leen sàkketi gan yaa ngi ñëw si yaatal boobu nag donte du pour appel bi rek parce que yaatal bi boo xoolee dakaar xam ne yaatal bi du pour appel bi rek pour dakaar gi yëpp la ndax Dakar moo ëpp lu muy recevoir ci région yi Sénégal ci ay nit moo tax ñun ñu ubbi kër yi génn kër yi jox ko gan yi pour waajal bis boobu si defar da ngay gis nettoyé kër yenn yi ñu koy gën a yëkkati di gën a yaatal parce que li mu waxoon nag ah woote bi dadul woote nit kese dafa ne woon ajibu daayallaahi yaa max insi wal jinni inni rasulullahi ilaykum moom dafa wowoon nit ñi ak jinne yi pour lan la pour ñu ñëw jaamu si seen borom loolu moo waral woote bi parce que dafa am yu bëri yu mu fiy dindi ndax boo seetloo dëkk bi bëri na diw duma ko may diw lan moo tax kii mbaay la sant kee njaay kee laay la sant kee kii mu indi laay laay googu mu indi pour lan la pour dindi li may wax noonu moo tax léegi loolu daal laa mën a tënk pour wax la ne li waral woote bi loolu bokk na ceeg yooyu. jërëjëf jërëjëf sang bi loolu am na solo ndax eh, ni nga ko jàngatee noonu am na solo indi laay gi ngir dindi ni mu ko mën a déggee xeetu ethnie maanaam di kii géwél la ki géer la kii ñeeñal ak loolu laay gi ñëpp bokk ci. jërëjëf sang bi ci foofu nga ta daleeg ñun am na solo lool ñu ngi def dañuy jàll ci mbokk taalibe gi ci des mu ñëw ak ñun ndax ku ne naa Limaamu ñoom xamee leen sikar su neex muy baatu laa ilaaha lalaa xanaa dañ koy bàyyi moom it rek mu nuyoog mbokk internet yu Dakar instant may nu tuuti ci baat boobu di laa ilaaha illallaah kilifa gi nuyu nañ la bismillaah الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمين آمين يا عباد الله آمين آمين يا عباد لما أفلق الله سبحان عند طلعت الشمس يوم الأحد دعا سخلين كلهم لا إله إلا لا إلا لا وين لمامكم بندوي فرافيا صوت ذكر الله خال أجبو daaya laay sax lay ni kullihimi bàyyi laay mu baax ma sumal isaarata warida ata waxdan wal ama mata wahdan lubsa waxdihimi mu génn naan laay laa ilaa laaw laay laa ilaa laa laa ilaa ilaa laa neex na lool baatu laa aji boo daay laay xanaa ni def eh, sëñ bi doon way mu fàttali ñu turam rek ndax mbokk internet yi xam moom mooy kan kilifa gi siyaar nañ la bu baax. ñu ngi siyaar ñëpp di jéggaluwaat bu baax di dellu di tuubal sunu borom moom mi nga xamante ne moo ko yeyoo di sant sangu sang yi di julli ak di sëlmal ci moom di ziar sunu xalifa ak mbooleem xalifa yu lislaam bi yëpp foofu waaye nekk rek sama borom dolli lam dimmal te gën laa dëgëral. yaatal sa mbootu te sàmm leen ci barkeb sanga bi di nuyu bu baax euh, ñi nga xamante ne ñoom la ñu bokkal jataay bi euh, di ñaan yàlla nangul ñu sunub jataay man la ndëkk Baye Modou Laye maa doon euh, jottali kàddu yu nga xamante ne noonu macha allah am na nu yaakaar ne dina jot bu ko defee di ziar bu baax a baax mbokku taalibe yi nga xamante ne ñoom la ñu àndal ci yëf yi jaa ngeen jëf. nu ma a xam nan la la dikkee. waaw alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi amaat yaakaar ne euh, comme ni nga ko waxee léegi bu dee dañu ne ndono euh, am na nu yaakaar ku ne dégg na imaam Saxiir Gaye mu baax mi nekkoon boroom xam-xam bu mag dëkkoon fii ci yëmbal euh, doonoon mu xaddamu laayeen nekkoon it boroom xam-xam bu yàlla baaxal ndax imaam Saxiir ku ne dégg na xeetu way yi wu ne wu taar wu ne wu wu xereñe wu ne wu mu woy ci diine ji benn rek euh, mu ngi woy ndijaay ja dem ca mbaar ma toog yem moo juste événement bi ñu toll ni di wooteb Seydina Limaamu waa mbaar ma naan doo fi toog fajil limaamu door a toog sa doom ju baax ji jommi na boobu sanga bi mu ngi lëlu di waaj a dugg ci liggéey bi nga xamante ne sunu borom mu ngi ko koy sante mbokk yi jaaxle foog ne euh, yëfi maam yi ay rabak yi ni mel ko dal ci foofu la inspiré wu daal di bind way woowu noonu ndijaay ji ñëw limaamu naan kaan waa pénc mooma ñu nga naan limaamu dof na jommi na dañoo gëlëm bi am rinaa kon ñu ngi am yaakaar ne bu dee wàllu ndono ah, cof nañu ci loolu waaye ñun li ñu ëppal solo mooy njàng mi. ah jërëjëf kilifa gi xam naa dañuy delluwaat ci sëñ bi tuuti ndax sëñ bi daa am foo xam ne da ko wax léegi muy baat boo xam ne sama classe gi koy dégg bari nan te xamuñu luy baat bi muy aaji boo daay laay bon doon wax ci baat boobu lan lay lan la baat boobu di tekki. ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax. di julliwaat si sanga bi rek di ko am contentement tamit pour di wax ci waxtaan wi nii muy waxtaan wu am solo. ndeysaan euh, di wax ne li nga wax moo mooy mooy solo gi parce que sanga bi ku ñu war a xam la. Hmm. ndax àdduna gépp am nañ si cër. mais Sénégal kenn ëpp ko si cër. kon ñuy woowaat waa sénégalais rek ñu bàyyi xel parce que ajiboo daayallaahi moom mu ngi woote ne ñëw leen wuyu si. lan ngi leen yu wuyu si ñan ñooy wuyu si ba pare mu ne nit ak jinne yaa maxsaral insi wal jinne mu ne kan la ñuy wuyu si mu ne inni rasulullahi man rasulullahi ndeysaan mu ne ilaykum moom rasulullahi mu ne ñu ñëw wuyu si ndawal yàlla li foofu nag wuyu si boobu lan la ñuy wuyu si kan lañuy wuyu si ak fan la ñu koy wuyu si parce que ñëpp xam nañ ne Mahdi yu day ñëw te Mahdi yu buy ñëw day feeñe sa saw bu sori ba boroom xam-xam yu bëri ñu ngi ràññee di xam ne parce que ñëpp dañ jàppoon ne bu nee saw bu sori ba rek Maroc la mais ñëpp xam nañ ne des na parce que Sénégal mu ngi fi waaw wallaahi mu ne léegi loolu daal woote bi loolu la tënku maanaam ñu wuyu si woote bi yàlla bi ndax woote bi yàlla bi lu tax ñu war ko wuyu si boo seetloo fii daanaka ñun kon fi ñu féete euh, boo seetloo sañu maam yi si do lañu lañu lañu nekkon parce que baye mu ngoy mu ngoy tuddu legi léegi bo setlo bi sanga bi wote ba muy wax naan di jaaje dem sa mbaar ma toog bo boo seetloo ñu mag ñep wala yof gep dañ japon ni ki kat euh, mbiri mbiri mbiri mam yeeka japp manam moy ndepp yek yoy mu ñew ne kat uy si len ma manam ñu neewon ci lendeum mu bëgg ñu jël ci lendeum gogu andi ñu ci clair mo waral wote bi wote bi yalla la sopp mu ñëw si moom yónni ndawam muy Jibril mu ñëw jotal ko mu xam ne jot na bi mu jotee mu taxaw wax ne wuy si leen ndawal yàlla li man mii maa leen di woo man ndawal yàlla li yéen nit ñi ak jinne ñi loolu daal moo doon woote bi waaw moo tax sang bi bi mu wootee ñun cër bi ñu ci am en tant que ndaw ñun defe naa déjà dañuy yëngu ci benn association association bi kuréel bi mu ngi tudd bàyyi Baye baax Baxna bàyyi baax na googu dafa utaale GIE ci suuf mu tudd servir le max di le Messie servir le max di le Messie léegi mu am tamit benn kuréel boo xamante ne mu ngi tudd jàmmalaay AM nekk New York ñooñu tamit ñun fekk avant ñoom ñun ñu ngi doon liggéey lan la ñu doon liggéey ci appel bi dañu daan ut ay berne di ko jox jaaykat yii di toog si biti ak ñi nga xam ne amuñu fu ñu dal léegi bi ñuy def loolu ñoom it nakate ñu ngi koy def ci beneen côté léegi bi ñu yëgee loolu ñu ne kat li ñuy def comme benn la est-ce que duñu ko ànd ren ñu def collaboration ak ñoom ànd ci ut benn place bu jege ñoom fi ñuy toggee ñun ut place bi parce que comme ñoo fi dëkk ñu ut place boobu nga xam ne dañ fay ñoom dañuy togge waañ wa ñu ànd ceek ñoom jëli ka sol sañuy lakos yom te ne day am sanu logo ak seen logo ñu and jël berne yooyu diko ko jox jam yalla yi nga xamantene ñoy ñooy nekk ci mbedd bi duñu am fu nu dal. ndaysan maam Bumole la déggé mu melni dafa don association bo xamante yeen seen yitte ci appel bi moy gan yi nga fi ñew wala sama kaas nga xam dañuy dañuy dégg yeuf yi mu neex rek ñu ñëw dalu way ngeen toppatoo len ba kenn du xif kenn du mar loolu amna solo ci kaw lolu ndax bo ñun koy waxee ku koy def du ay wax kese koy def du yaama neex koy def ay koppara koy def nan ngeen def ba mën a dajale loolu ba diko def ma sha allah ñu ñu santati Yalla rek di di content tamit si si ni ñu ko nara a rek di wax ne moy moy li wax rek nit bu nekké ci mbir day def ca loola te ena dem berek rek ma ngi déglu ben vidéo Cheikh Ousseynou Lay mu koy wax mu ne def leen ci appel bi ndax boo leen ci defee du ngeen ko ñàkk ñun avant mbir yi dañu nekkoon ci ay activités yu bëri ba defe naa sanu sanu cimetière yi ñu nekk nii mur bi ñoo ko liggéey mu ngi toll si 162 mètres ñoo ko liggéey mu dikkee ñu ay millions yu bëri mais association bi nag dañuy du association boo xam ne si si Zaïre dafa yor xaalis bu bëri mais chaque mois dinañu génn ku nekk dina génn di def avant appel bi loolu loolu yàgg na 2017 la la association bi commencé légui si yooyu ñuy def ak tamit daan nañ def appel bu joté comme comme jamono bi dañuy jaay boisson Les boissons, yooyu ñuy jaay jigéen ñi tamit am section féminine ñom dañuy jaay ay percale légui jaay yooyu ñuy jaay ak tamit quelques bonnes volontés parce que nit ki manul di dem nonu rek association bi dafa am ay soppe yo xamantene yalla daf leen cëral les si li leen yalla cëral ñom bu yi joté rek dañ leen di contacter waxtaan ak ñom ne leen kat ñu ngi waaj li duñu dugg ci dara te waxuñu leen léegi buñu leen waxee ñom it dañ yëkki seen participation joxe booleeg li ñu yor inshallah loolu lañuy défé berne yoy ñu lay wax ni ndaysan loolu am solo ni nga ko waxee toarkàlla macha allah te ñu ngi ñaan suñu borom fekk ci leen ci ak dolay bopam ndax loolu lo am solo la xaan yi def mooy dañuy jallat ci sa waa ji mu moyaat ñu tuuti ci sikar si ndax jotay ak layen ni ma koy sikar si mooy xorom si fi jaanibil baxri sakan wal mawjubi daari wasal la lay lay la laaw lay lay la laaxa illa laa yàlla ko yónni njindu maas yàlla ko dee xayru xalqilaay mooy ñu ngi ci daanaka cëppaandawu émission bi muy seen émission dal jàmm fii ci Dakar instant ñaa leen ni leen ni leen ko waxee saa su dem ci ëtt kër diine yi ndax amuñu xaaj amuñu ci seen ñëpp ci lañ bokk ndax Sénégal Sénégal gi ñun ñëpp ko moom ñun ñëpp ñoo ko bokk te lii daa doon loo xamante ni daa neex doon ay gone waroon a nekk ca eh, pëccëxoo ga mbaa ci leneen la ca des waaye nga bàyyi lépp def sa yitte yàlla suñu boroom ak yonentam ba ban message ngay jàllale ci appel bi ak association bi ñan nga ciy woo ak ñi nga xamante ni yaakaar ngeen ne buñ ñëwee dañu mën a jàpp ci yëf yi liggéey bi jàpp Dakar instant moom yaa lañ dañuy daal di ñëw tafu ci association bi rek yeboo nu bind nu à partir d'aujourd'hui moom nan nu bind nu ngi ci association bi ndaw ñëpp ci association bi ak diine ji ak defe naa foog nga dugg ci diine ji ba pare mën a bokk ci yu mel noonu moo tax dañuy woo ndaw ñëpp surtout ñi nga xamante ñu nag ñoom ñoo dëkk bokk mbir mi di leen wax ne kat ah àdduna daal lépp loo fi nekkee rek xamal ne luy luy wees la léppay jeex mais nag am na luy des lii des nag mooy li yàlla bëgg ndax defe naa yàlla dafa bëgg ñun ñuy bëgg mu ne bàyyi leen li ngeen bëgg ngir li ma bëgg su ngeen ko defee dinaa leen dimbali si li ma bëgg man sama borom seen borom ba pare dimbali leen ci li ngeen bëgg yéen. kon man message bi may jàllale mooy daw ñëpp bàyyi xel ne bés mu ngi ñëw dangay wuy wuyu ji sa borom. te boo wuy jee sa borom du yëfi àdduna yi moo la mën a moo la mën a taxaw. li lay taxaw mooy li nga def ci diine ji. appel bi nag li ma ciy wax mooy lu lu Sénégal gépp war a gëstu la lu ñëpp war a xool la ne ah. kii kat mu ngi woote ci saw bi mu mhm. ngi wax ne lii la ak lii ak lii ak lii ñu xool ñu segg parce que nit ko xamante ne woote bi mu woote boo ko xoolee du dara lu dul yàlla yàlla mm-hmm. kase la woote bu booy booy juddu booy gane si àdduna mm-hmm. ñu ngi lay si karal mm-hmm. ngay wuy ci sa borom ñu ngi lay si karal lépp looy def lépp lépp lépp yàlla lay tudd di ko di ko boole pour lool man loolu rek jarul sax ñuy ñuy yaatal lool rek war na tax ñëpp ñëw gëstu mbiram. wallaay wallaay. après buñ ko gëstoo ku nekk nag jàngat xool li mu wax lan la. Mm-hmm. parce que mag ñu baax ñi boo xoolee Sénégal ñun li tax ñu war a ragal mooy. Mm-hmm. mag ñu baax ñi kenn musul diingat sa morom. ndeysaan ñoom ñëpp ñu ngi toppante. di tuddantey doom di demalante ka ñëw. Mm-hmm. kon ñun ñii nga xam ne ñooy seeni sët. ak di seen i taalibe di seeni di seen njaboot. Uh-huh. ñun war nañu roy ci ñoom ci côté boobu. ndeysaan di wax ne association Baye lay baax na nag ubbil nañu suñuy bunte ñëpp. Uh-huh. di wax ne dañu war a doon ñoo xamante ne dañuy jàppalante. Mm-hmm. ndax dañu bokk li ñu bëgg. dama ko doon dégg ñu ne Baye Seydi Thiaw ko wax mu ne ñi bëgg ñi bokk li ñu bëgg dañu war a bëggante. Mm-hmm. côté boobu maa ngi siy lancé message ñëpp jeunes yëpp ba pare avant may jàll nag ci bonne volonté yeeg ñi nga xamante ne yàlla barkeel na leen. Ah. ñu am ay. koom-koom. ñu mhm. war a def nag ci diine ji. Mhm. ndax maa ngi déglu fan yii sama benn xarit sama benn sëriñ. sëriñ Bas bu Sëriñ El Hadj Abdoulaye Thiaw xalifa bi. ndeysaan mu ne laayeen ak laayeen bu ñu gisantee dañu war a xoolante rek di jooy. ndeysaan. fan yii ku gis samay estati loolu laa ciy def. ndeysaan la ah gars yi nañu jooy. kon jamono bi ñu toog ah, waaw parce que jooy la jooyu mbégte la <laughs> ndeysaan parce que bu dee jooy wala reetaan bi bu mu si doon hmm. mbégte rek la ndeysaan di Mm. ñu ngi nuyu sañu mbokk murit yi ndeysaan di leen siyaar di mm-hmm. leen jox seen wàccuwaay di leen wax na bés seen bés ñëw mm-hmm. parce que am mm-hmm. na fi hymne national ndeysaan ñu koy waxati sañu mbokk tijaan yi di leen wax ne seen bés ñëw na am nañu fi hymne national ba Ndiassane feneen ak feneen Kaolack fépp ndeysaan woo ñëpp di leen wax ne mm-hmm. woote bi daal mm-hmm. waxta simoo la maanaam ñu ngoy si guumug yàlla gi rek waaw jéem a liggéeyal borom bi mm-hmm. si ànd ci bëggante ci gëstu si xam ku nekk li nga woote lan la ñu jéem la si jàppale loolu daal moo doon kàddu yu woote yi di kontaanaat bu si yéen tamit waa Dakar Instant du ñu ko noppee wax yéen tamit bu ñuy tëj incha allah ñu dugalaale ko si incha allah barkeel seen mbir si barke bàyyi laay mu baax ma waaw jëf laa jërëjëf kilifa gu mag gi noonu ma ko waxee am na solo kon ñoo ko déggandoo mbokk jullit yi mbokki taalibe yi appel bi yegsi na le cinq le six avril bi ñu ne maam suba mooy le premier kon daanaka ñaar ci ay fan wala benn ci ay fan moo ci des association Baay Laay baax na di ay jeunes yoo xamante ni danoo sopp seen maam lool sopp seenub sëriñ jóg ngir fas yéene teral gan yi fii ñëw fas yéene lay berneel kon kep ko xamanteni ni liggéeyal suñu borom ñor na la nu ngi lay woo ci association bi nga sànn ci saw ñaq kon ni ñuy def nan ko tàmbale woon ndax waxoon naa leen ko yëf yi bàyyi laay sikkar a koy tàmbali sikkar kara koy tëj kon dañuy jox Amadou Laay mu sikar tëj jin randal na geej ba mu sës sampa kër ya lii dafa wér mooy rasool ku man na ko def moo yoyoo kiraamate baatu laay laay la saxal di woote li laay daal ni aaji boo daa ya leen bi daawate